ok bisimilla mbiyeteemo ko amadou bayla coulibaly responsable politique en allemagne euh, Bayern de munich vice-président aussi des sénégalais dombo sénégalais hal mino noon haaldete moon onon bandiraɓe haalpulaar en pour yidde andinde on euh, no mimitore woppira eyyi e, e goo fof kadi mbawɗo wajade maki e dow ko waɗi ko minen wonande grand yof min ngalda e ko waɗi ko min nodda heen noon wonko ceerno mansour baro menno wiide min en 86 e dow yamirore seernaɓeɓe fof emin nodda heen ceerno madani tal emin nodda heen ceerno amad tidiani ba to madina gounas pour kanko yo daro heen darde jokke heen enɗam ko waajo maki e so ɗum mbini goo fof mbiɗa salmini ɗum e mamin jokku haala ka so ɓeni on saha inshallah on jarama ok en wolof silof amadou koulibaly la tudd Allemagne laa nekk dëkk bu wax Bayern de Munich sur responsable politique en même temps le vice-président des Sénégalais de Bayern mu tudd doomu Sénégal euh mooy moy fala do liggéey fala laa donc parti bi aussi biñ koy sos moom Macky seet si nañu seet si woon nañu te maa ngi ci woo Souleymane Jules Diop maa ngi ci woo Aboulo maa ngi ci woo Diène Farba Sarr donc moom démission bi ci def dañoo bëgg ñu toog ñoom ñëpp te directeur APR bi toog xoolaat ko que bi warul demee ni que Mimi liggéey na def na lu mu mën seulement nous euh, du ñu pousser les bavardeurs à les travailleurs parce que au Sénégal les politiques, politiquer du loolu lañ en étranger parce que mu ngi leur loo ne c'est pas ça c'est pas de la c'est pas de la politique aussi nit buy une ngeen def une tendance benn lobby pour gagner ko du du et qu'au au niveau Grand elle a gagné. Tanor a soutenu total. PS a soutenu totalement Khalifa Sall. te Khalifa Sall ñun ñoo nag euh, bennoo ñoo ñoo ko bokk ba pare moom mimi mu demal boppam Adama Faye durant six mois durant six mois ñu ngi ko ñu amul amul luñ ko amul luñ ko tegul mënoo juboo ci une semaine nga gagné les élections donc moom def na lu mën les responsables politiques de Grand Yoff ne affaire affaire de famille la wax nous nous affaire de famille nous ñu wax si c'est la politique nous wax aussi sénégalais président la biñ a diaspora de l'Allemagne Aboulou, mu ngi Souleymane Jules Diop xam na ma bu baax mu ngi dégg li may wax te maa ngi ko ciy woo aussi di ko interpeller waaw ñu ngi leen di déglu dégguñ leen de démission bi nag liir nañ ko dégg nañ ko ci télé bi mais ñu ngi leen di xaar waaw ñu ngi leen di xaar waaw. merci grand. jërëjëf merci.